Eh, ko ma bañ a mere nag bëgg nag ah ma la dalee invité ndogu ba tey yaa ngi soog a bëgg ñëw loolu du dara dara la kay xanaa xamoon <laughs> xanaa xamoon nga invité nit ndogu ah bàyyi ba 10 jours yu njëkk yi jàll ah nga ñëw ba ci 10 jours yi nga xam ni maanaam ci diggante bu mujj beeg bu njëkk bi la ne nga invité si nit euh, ndogu loolu rek tiyaaba la. comme naan tiyaaba. maa la ko may baab. non non baab la sax. dëgg rek laa la wax. yàllaa ko def loolu rek tiyaaba la ah da nga moom yow xam nga ni muus ah, kenn du la gis di la bañ kenn du la gis di la bañ ah musuma ko am ci àdduna yi kaas laa gëj a gis sax ah waaw noo gisee reer bi ah ginaar gi fa nga ko def <laughs> waaye da laay def ak yeneen la ilaha illallah ni nga def ginaar gi ba doomu ko def fukka raw laa lay jàpp bismillah laa waxati tidak. bi mu génne ci rek xam nga ni lii lii lii lii musuma ko dund sama àdduna xam naa ni dundoo ah pour nga dund faaw nga am keneen xale bu ndaw ay ja lay delloo ci say vingt ans man kay lii tax man lii tax sama xarit yi sama wóolare kenn ku ne am ñaari jabar ah man daal tudduma kenn waaye daal place ma pour moo may aj def la sama xol Ibou ma booleeg yow. ndax Ibou duma dugal ci tuux duuna. waaw Ibou Ibou ma la jox. ah yow eh, eh, man ma Ibou eh, Ibou moo moo ñëw ba ci man tamit jox ma la. Mhm. Ah, kon ke loolu mbiru yàlla sunu boram la. te gis nga góor dëgg. Mhm. balaa mat góor day am ñaari jabar. góor dëgg nag laa la wax. laay wuu. xam naa ne man mii Ibou duma boole duma dugal ci ci àdduna mukk ci àdduna bi mu ñëwee wax ma say wax mhm. ah, man tamit ma nangul man man daal fu mu ne nii li wax wax la ko mooy jox la sama bopp yaa wax lii te gis nga naa la xamal leen nag pour wal na leen caaxaan indiwu ma rek danaa yebal iboog daam yaa ngi may dégg ah. bu korité ba pare mën naa ne ba ca gannaaw ëllëg sa sax parce que dama laa yàqamti ah ñu def farata nga don deuxième femme ah don ñaari xaritu jëkkëram da nga war don doon ah man bo ma xoolee xam ne du ma góor benn jabar nag yow it gisoo ni ma jeexee te foog nga noddanti ma ah, ah? allahu daa mun nga ma bàyyi waa gële fi wayo sax sa jabar jooju non dégg naa dafa compliqué yow non nga def ba koku ma kooku ak mom ma hmm. maa ak mom waaw yow xam nga ni dem ci ci yow rek dem ci ci yow rek jar na lu ne ah, ah jar na jaar ci kaw terrasse jar na tëb miir ah jar na sax bëtt sàkket maa la ko wax. yow sa xam la moom may rey ci yow. sourire bi ay waay dee ree li may kat bi naan ree ma lay ree. yow nga doon bay. laa xam nga ne loolu sob yóbbu fa nga dugg nii. naa ngir yàlla guru suur bu ma yërëm. yërëm boo may rendi xol. rendee ma fii fii nga fii. fii ngay tàmbalee di rendi ah. bàyyee ma sa bopp. jëlal yaay borom. bàyyee ma sa bopp. jëlal lépp yaay borom. ba mu mel ni jàmm. ah. ay waay gëj naa dund lii waay. ci mu ko mosul sax yow ku la xool nii xam ne mosoo dund. xam nga lu ma bëgg. ma xool ma mosal tuuti rek tuuti rek. jaajëf gars yi bëgg naa leen yéen a ngi am jàmm naka liggéey leen foofu de dina baax waaw kay waay daan ci suuf tànk ci suuf yàgg yàgg daje eh ibu ibu eh taxawal jàll jàll jàll jàll jàll rek jàll rek ah ibu taxaw da nga taxaw de suuf nga yow traître nga jàmm nga yow yow ndagare da ngay woote sama xarit ay xarit diggante doomu ndey ak doomu ndey yow ndagare man ak yow ñu dara ah dara bokkuñu ko dara bokkuñu sax euh, jëmukaay nii ngay jaar man ma jaar nii ah bon boy bëgg a def si ñuulaay bi ñuulaay seytaane bi nga yor ñuulaay kaa bëgg a def ñuulaay seytaane la waa di nga xam ni lépp dëgg la Hmm. caro nag hmm. yaa ko tax yoon hmm. yaa ko indi di kër mu war a daw seen digal di bàyyi say tere daa tax buum fii di di la yow yow yow man dama am fulla sama kër man sama kër nee naa la ba tey benn genna géñaloo dama koy takk yow sa kër dëgër dëgër këj la def dëgër këj la def waaw sa sa ñu laay ñu laay seytaane bi nga bi nga sax oh. ah yow loolu booy tas booy tas kër di tas kër ba koor ñëw nga war a mën a noppalu jaamu yàlla ah woor ci jàmm ak salaam ah waaye wëlbatiku ñëw di di tas sama kër loolu yow sàcc nga suñu xaalis loolu doyatul ah, ah nga wëlbatiku. Ah. yow yow nit ñi takk ay ah. Sénégal yow nga takk ndarek xam nga yow xam lu ma nga xam ko. maa la gën a rew. maa la gën a con. si yaa ngi gën a xaalis boobu ngay wax. borom hmm. yow la hmm. wala mi daam. Hmm. ni ma leen def rek ngeen def da ngeen jaay suuf lekk lek yaa ngi dégg parce que a ma gën a doon jaay fuuf. man mi man mi man gën a doon jaay. maa tey biir ci ginnaaw naan. maa tey ndox ju jot ndox wëlbati di moo lebal waaye naa la xamal leen yaa bëgg ñaareel ma doxal na la li des si xaalis boo jaaree sama buntu kër naa ma fay ma ko billaahi di nga xam ne dëgg la di nga xam ne lépp dëgg la nga yow maa la gën a réew fuuf waaye ndox yaa ma sut waaye billaahi yaa am lu may rus am na lu may rus ma leen ndox li tax dambala lii naa la tax dambala nag waaw cim